24 77 413 59 24 xar yëpp xar gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Sunugal 24 l'information suñu bànd ak yéen ci suñu gal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen jàmm ci xibaaru ngoon gi ñu ànd ak yéen leen xibaar yi fi jot a sunugal 24 point net dañ koy doo rek jàngoroy coronavirus ji nga xam ne mi ngi wéy di amal ay jéegoom ci biir réew mi tey ci nga tey ci ajuma ji nga xam ne daal dinañu nemmeeku la pas téeméeri cas eh, ci siège Ecobank bu Sénégal lu ëpp fukki ka ak juróom-ñaar yu yees la ñu fa dal di nemmeeku ca kañu ko njëkk ak gisee mu di directeur Ecobank boobu eh, dal dinay tax situation bi nag ñi nga xam ne ñooy liggéey ci boobu boobule banque ñi ngi ci njàqare ak fukki nit ak juróom-ñaar yooyu nga xam ne testé nañu leen positif la gën a doon njàqare ci ñoom mu di nit nga xam ne ñi ngi doon dugg ak génn ci boobule Ecobank di jël xaalis naam wàllante nañu feebar bi ci seen biir. ñu wax ci jouet yi nga xam ne dafa am alcool xal jigéen bi nga xam ne moom moo ko dal di découvrir ci ay njabootam dëkkee fa nga xam ne moom moo di Rufisque dal dinay ñëwaat ci na nga xam ne noonu la def ba xam ne jouet yi xale yor am na lu ci nekk nee na doomam yi nga xam ne kenn kaa ngi am juróom-ñaari at kenn ki am juróomi at dafa dal di gis ne xale yi jamono ji dañoo commencé commencé woon di agité te itam di euh, yéex a tëdd euh, ci la gisee li nga xam ne moom la xale yi di naan mu daal di gis euh, couleur ndox bi daal di nekk couleur boo xam ne xawoon na ko jaaxal ci la nag daal di waxee ak doomam bu góor ci la ko ñemee jàpp ne yëf ya dafa périmé waaye doomam bu góor boobu ñëwee moom it daal di vérifier ci la ñu ñaawee njortu jël al liquide ba daal di koy sotti ci benn morceau taal mu daal di tàkk ci la alerte li nga xam ne moom moo di police ñu daal tàmbalee gëstu ba daal di xam ne jouet yi nga xam ne moom la xale yi yor dafa am lii di alcool coowal Ouzin Keita daal dinay waxati maninam ca Feeling Dakar ginnaaw bu mu amee li nga xam ne moo di entretien ak Feuz daal dinay dikkaat ci bi nga xam ne violé woon nañ ko ko ba muy am fukki at ak ñaar nee na benn jigéen boo xam ne moo ko mag lu ëpp fukki at ak juróom moo ko violé woon daanaka sax ca la tàmmee woon lii di sexe ba mujjee ëmbal benn xale bu jigéen ba am ca doom moom Ouzin Keita moom mu dinay dikkaat ci boobule viol mu mel ni viol boobu itam dal dinay wax ne moo def ay traumatisme ci boppam ba léegi ñu àddu jëmale ci coow li fi fan yële ñu génn diggante soxna May Mbay ak ki nga xam ne moom moo di te Mbàkke ginnaaw bu soxna May Mbay doon vérifier li nga xam ne moom moo di téléphone jëkkër ja dugg ca messenger ca la ay vidéo yoo xam ne te Mbàkke mi nga xam ne dafa bokk ci famille bu baax ci biir réew mi moom moo doon yónnee yooyu les photo jëkkër ji ca la jële photo yi nag daal di koy tasaare ci biir réew mi ginnaaw bu mu ko yónnee ki nga xam ne moom moo di Aïssatou Gueye ak papam di Moussa mbay photo ya dal di tas dal dinañu leen di àttee démb fa nga xam ne foofu la ñuy àttee euh, ca tribunal flagrant délit bu Ndakaaru dal dinañu koy tëj moom soxna May mbay moomu ñaari ati kaso yoo xam ne juróom benn weer ya lay tëdd waaye ki nga xam ne moom moo di euh, avocat wu te Mbàkke da doon sàkku ñu dal di koy amaan lu tolloog 500 euh, millions Euh, coowal Adja Diallo ak ki nga xam ne moom moo di Karina Tavares ñaar ñooñu nga xam ne coow doxoon na seen diggante ay at boobaak léegi euh, te kenn ku nekk di yàq sa morom xeme ci réseaux sociaux yi daal dina ñuy juboo ci seen biir ñu gis ay photo ak ay vidéo yoo xam ne euh, publier nañ ko ci réseau sociaux yi ci anniversaire u Fashion bi mu mel ni diggante Adja Diallo ak ki nga xam ne moom moo di Karina Tavares am na ay nit yu ci dox tànki jàmm ba ñoom ñaar jamono ji dal dinañuy àndaat sekk jàmm ñu dem ca diwaanu Mbàkke quartier ba ñu naan gaawaan ak Escale di nañu fay teg loxo benn chinois ak juróom benn jigéen yoo xam ne ay sénégalais lañu ginnaaw bu ñu defee loo xam ne dëppoowul ak li yoon wax dañu fa ubbi li nga xam ne moom moo di ab établissement de jeu boo xam ne amul benn autorisation buy wanee ne waral waroon nañ ko faa tijji mu mel ni itam daal nañu fiy ubbi li nga xam ne moom moo di débit de boisson alcoolisée amuñu ci benn autorisation ñeenti machine de jeu yooyu daal dinañu koy euh, ne moom moo di diwaanu gaawaan ba tax na euh, ba ñu alerté ñi nga xam ne ñoom ñoo di polisu Mbàkke ba ñu ñëwee dañu leen dal di fodong yóbbu moom jigéenu Sénégal boobu ak chinois boobu jamono ji euh, daal di nañu leen di placer su euh, garde à vue dal dinañuy teg loxo benn fa policier boo xam ne da doon def li nga xam ne moo di ay signature wala muy nax askan wi ne moom mooy agent de la brigade de recherche bu poste police bu mbaaw dal dinañu koy teg ginnaaw bu mu piégé woon benn xale bu jigéen nangu li nga xam ne moom moo di carte d'identité ginnaaw bu ko xale bu jigéen boobu nag ñaawee njort ci ni nga xam ne noonu la nangoo carte d'identité xale bu jigéen boobu mi ngi nekk ab de bus ci la nag demee fa nga xam ne moom moo di police bu Sicap Mbao ngir nag def li nga xam ne moo di alerte bi waaye ba ñu defee seenub gëstu euh, gisuñu fa kenn koo xam ne policier la ca Sicap Mbao kuy wuyoo ci turu ngoom ci la ñu ko daal di nag tendre piège ginnaaw bu ko policier boobu waxee woon nee na jël si carte d'identité ca këram ci la àndeek yenn takk der yi ñu dem ca këram dal di koy fodong yóbbu ko fa mbaxana doone benn jamono ji dal di nañu koy teg loxo mu ngi euh, su mandat de dépôt askanu Pikine ñooy laaj fu seen maire bi féete Abdoulaye Timbo mi nga xam ne depuis jamonoy coronavirus ba léegi benn bi yoon la waa Pikine ne moom lañ ko gis mu génn waxtaan ak askanu yi mu di jamono ja nga xam ne Marième fay sàll ñëwoon na ca Pikine ngir nemmeeku si askanu Pikine mi nga xam ne ñoo nekkee woon ci jafe-jafe ci jamonoy mbënd mi boobu ba léegi waa Pikine nee nañu gisuñu fenn foo xam ne Abdoulaye Timbo daal dinay génn ak jafe-jafe yi nga xam ne ci la réew mi nekk rawatina ñuy yeewoo ca diwaanu Pikine ñu wax ci wàllum tàggat yaram ak international sénégalaise bi di Adja Paye mi nga xam ne moo nekkoon arrière gauche bu équipe nationale handball daal dina jël décision dakkal li nga xam ne moo di carrière am internationale Adja mi ngi am fanweeri at ak benn mi ngi juddoo ci France waaye terewul mu daal di ñëw ci réew mi di Sénégal ci la adhéré équipe handball Sénégal bi ci atum 2010 boobu ba léegi mu ngi woyal ab liggéeyam li waral mu daal di koy dakkal daal na am lum ci fësal ndax nee na ci 2010 ba léegi ñi ngi woyal xale yi te jot na ñoom it ñu dal di bàyyi boobule carrière jàll ci leneen. ñu des ci mbiru Sadio maane mi nga xam ne moom la ñu classé quatrième position tax na ñenn ñi jàpp ne mbir ma daam par parloo ndax jàppoon nañ ne Sadio Mané mooy nekk ca bopp ba waaye ki nga xam ne moo di journaliste bi di euh, Salif Diallo daal dina ci àddu ba ñenn ñi jàpp ne dafa soxor la tax mu indi ci ay leeral li tax mu choisir ki nga xam ne moo di Lewandowski que Sadio Mané nee na euh, Sadio Mané naam joueur bu baax la waaye ki nga xam ne moo di Lewandowski moom moo nekk meilleur joueur ci année 2019 jàpp 2020 ndax daal dinay gagné trophée yëpp ndax bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moo di jongante yim jot a def ligue champion Europe moom moo ko gañee ak li nga xam ne moo di super coupe bi ci Allemagne itam championnat bi ak li nga xam ne moom moo di coupe bi yooyu yëpp Lewandowski moo ko gagné Sadio Mané naam bu fekkee joueur bu baax la itam nañu nangul joueur beneen bi nga xam ne moom la ñu teg ca bopp ba mbokk yi xarit ñu doon taxirlu ci Sunugal 24 fii la ñu yëkkatee jotaayu xibaar bi lee ñaanal leen fanaanum jàmm ñaan ngeen woyal suñuy programme di leen di jox dig daje ëllëg incha allah